بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قلنا لوربوكي نيجي نيوين كي دورة بينا خمنة موي جمتي والو النصرانية موي جم جمو كريستيانيزم تكوتي بالانس خول بخم nan la ko lislaam gisee tomb biñ ci war a waxtaane nag tey ñu jagleel ñu ko mi ngi jëm ci al islam huwa diinu jamii al anbiyaai wal mursalin muy xam gu ñu war a xam ne islam ci boppam mooy diine yi mboolem yonente yi fi yàlla masa yónni yépp l'islam la leen joxoon muy seen diine kon l'islam moo fi masa nekk mooy diine di yàlla masa nangul jaamam yi ñu jaamoo ko noonu ñu ñu jaamoo ko ko muy diine lislaam te loolu li koy tegtalee lu bari la suñ borom subhanahu wa taala mi wax ci alquran inna diina inda allahi al diine fa yàlla mooy islaam kon loolu jeexal na wax ji diine ji yàlla reconnaître fa moom mooy al islaam suñ boroom waxaat ne waman yabtagi gayra al islaami diinan fala yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min al xaasirin képp koo xam ne mi ngi sàkku jeneen diine judul islaam di ko jéem a diine woo di bëgg jaamoo yàlla noona nee na loolu noona ngay jaamoo yàlla ca du lislaam kenn du ko nangu ci yow suñ boroom du ko nangu ci yow du ko accepté ak loo ca sonn sonn sonn ci ci alakhirah ci pit ci ñu perte ngay bokk ñu perte lan lay boole ci alakhirah bu fekkente ne da nga jël jeneen diine bëgg ko diine woo ca nekkul islam yonente yépp kon moom lañ woote bo tàmbalee ci yonente yàlla nuux mi ngi wax ne wa umirtu an akuna min al muslimin dañ maa digal ma bokk ci ñi nga xam ne ñooy waa lislaam ñooy ñi nga xam ne ñoo jébbalu seen bopp suñ borom subhanahu wa taala minal muslimin naka noonu boo demee ci ibrahim id qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu li rabbil alamin ba ko boroom waxee ne ko jébbalul mu daan ne jébbal naa sama bopp ci boroom mbindeefi loolu la dénk doomam it ak yaqub inna allaha astafa lakum ad din fala tamutunna illa wa antum muslimun boo demee ci yonente yàlla suleymaan ba muy yónnee bataaxal ci balqiis dafa wax ne allah taalu alayya watuuni muslimin watuuni muslimin na ngeen ñëw nekk ñoo xam ne ñuy jébbal seen bopp seen boroom la bi balqiis ñëwee ba tuub dafa wax ne wa aslamtu wa aslamtu jébbal naa sama bopp ànd ak suleymaan lillahi rabbil alamin ñel yàlla wa aslamtu واسلمت مع سليمان لله رب العالمين نكنو نوني انو نك عيسى مي حواري يوي واذا اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد واشهد باننا مسلمون سيدلنا نون كي نون اي مسلمون لاي موسى نكنو فعليه توكلوا ان كنتم إن كنتم مسلمين فعليه توكلوا له إن كنتم مسلمين إن كنتم مسلمين كن بو سيتي تي يونت ييب بوكاي خول تي القران الكريم باتو مسلم مسلمون اسلام لاي سن بولا سبحانه وتعالى دي جيفانيكو ديو خامل نيكون نيوم تي الاسلام لا نيكون الاسلام moom la leen yàlla joxoon buñ xamee loolu kon ci tegtal yooyu nga xam ne doy na sëkk eh, dañu war a xam ne kon lan mooy lislaam bi ñu yoroon lislaam mooy lan kon concept lislaam mooy lan parce que jullit ñu baree baree bari ñu ngi nekk ci biir diine ji waaye xamuñu luy lislaam dëggantaan ndax lislaam cin juddoo eh, li ci rax ci aada dafa bari li nga xam ne def cee rax te mu nekk aada da cee bari lool bañ jàpp ne moom lislaam moom mbir la moo xam ne daal euh, mën nga cee nekk nekk ci leneen même ku ci nekku tamit man nit mën na cee bañ a nekk ba noppi nekk ci lu baax nekk ci lu jub yéen ñëpp a yam daal comme yéen ñëpp gëm ngeen yàlla rek moom baax na am na ñu bari ci julli ñu noon la ñu doxee boo waxee ñu ne suñ mbokk chrétiens yi suñ mbokk juif fi waaw ñun ñëpp ci yoonu ci yoonu yàlla lañ jëm ñépp ay way gëm lañ loolu njuumte la jullit war tëggam loolu loolu du alquran jàngale du sunna jàngale l'islam moom la yonente yépp woote ci l'islam ñu jàngale mooy gëm yonente yépp du tàqale benn yonent saa boo xamante ni am na yonente boo weddi ci yonente yi yàlla ma sa yónni moo xam nuux nga weddi wala ibrahim nga weddi wala Musa, wala isa wala yonente bi salallahu alayhi wasallam. képp koo ci weddi ba noppi di wax ne gëm nga keneen ka sa gëm googu kenn du la ko nangul wérut ñépp ngay boole gëm laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli suñ borom ne inna alladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan suñ borom nee na ñi nga xam ne dañuy weddi yàlla ak ak yonenteem di bëgg a teqale diggante yàlla ak yonenteem di wax gëm nañ yàlla waaye yonente yi moom am na ñuñ ci gëm am na ñuñ bàyyi di ci bëgg a wut ñu ñuy gëm ak ñu ñuy weddi suñu borom nee na ñu ñooy yéefar yi dëggantaan ñooñu ñooy ñu weddi dëggantaan kon képp koo xam ne weddi na benn yonent weddi nga yàlla ndax yàlla moo yónni yonent yooyu yëpp ca lim leen yónnee mooy lislaam boo ne boo ne weddinaa naa kenn ki rek moom weddi nga ñëpp ñu ci des ndax ñi ñi ci des bokk ne liñ saxal mooy yonente yépp lañ gëm ñoom suñ borom subhanahu wa taala mi ngi wax ak yonent yi jiitu yonente bi sallallahu alayhi wasallam wa id axada allahu mithaqa an-nabiyyina wa id axada allahu mithaqa an-nabiyyina lama ataytukum min kitabin wa xikma ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه qaala a aqrartum wa axadtum ala dalikum isri qaalu aqrarna qaala fashhadu wa ana maakum min ash-shahidin suñ borom nee na jël naa kóllëre yonent yi ba ma leen joxee téere jox leen xam-xam wax leen ne leen su ma leen joxee téere jox leen xam ci ginnaaw loolu ab yonent dikk seen ginnaaw di dëggal li ngeen yor ndax da ngeen ko gëm ndax da ngeen ànd ak moom ñu daan ne waaw danañ ànd moom mu daane ne kon seede leen kon seede leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koy wax daan ne Moussa day bu doon dund du def lu dul topp ma man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam law kaana Moussa xayyan lama wasiahu illa ittibaa'i Moussa bu doon dund dara mënu koo doy lu dul ne day ñëw sama ginnaaw damay topp ndax bokk na ci seen téere lañ ca bind mooy ab yonent mi ngi ñëw ci seen ginnaaw boo xam ne da ko da ko war a gëm ñoom juif yeeg ñoom chrétien ñoom juif yi ak chrétien suñ borom mi ngi koy wax alladina alladina yattabicuuna arrasula annabiya al ummi alladi yajidunahu maktuban indahum fi tawrat wal injil ñi nga xam ne dañuy topp yonent bi nga xam ne dañ koy fekk ñu bind ko ci ñoom ci tawrat ak linjil ma nga ñu bind bind nañ ko fa bind nañ fa turu yonente bi salallahu alayhi wa sallam joxe fa ay ay melokaanam moo tax suñu borom di wax ne ñi nga xam ne ñooy juif yi ñoo gën a xam yonente bi xam nañ ko comme niñ xamee seeni doom alladina aataynahum alkitab yaarifuunahu kama yaarifuuna abnaahum ni ñu seen doom biñ jur ne kii ñoo jur noonu lañ xamee yonente bi salallahu alayhi wa ne kii yàllaa ko yónni ab yonente la buñ war a kon lislaam ci gàttal mooy jébbalu sa bopp xam nga julli ñi dañ koy faral ne Eh, muslim mooy jullit ñu jële ko ci baatu julli waaye eh, muslim li muy firi dëgg-dëgg mooy ku jëbbal boppam yàlla kon lislaam mooy jébbal sa bopp yàlla li ci jiitu mooy tawxiid wéetal yàlla suñ borom subhanahu wa taala bañ koo bokkaale dara gëm yonante gëm bisu penc ak la fay xew yooyu muy ay cosaan ci wàllu ngëm ak cosaanu jikko yu baax yi ak cosaanu ñaawteef yi yooyu yonent yépp ñoo ko nuróole ñoo ko bokkule ñépp ci loolu ci loolu lañ doon woote li nga xam ne moom lañ moom mooy am ci biir ci ay wuute mooy asharaa bu yenn détails yi ci wàllu atte yi yenn yi daganoon bu njëkk suñ borom daal koy xaraamal wala yenn yi xaraamoon suñ borom daal daal demaat ba daganal ko loolu day am isa mi ngi wax ak nitam naan leen wali uxilla lakum baada alladi xurrima aleykum yàlla yónni ma ngir ma daganal lenn loo xam ne dañ ko araamaloon ci yéen lu jiitu kon yooyu mën naa am suñ borom subhaanahu wa taala yónni benn yonent am ay mbir yoo xam ne da koy daganalal ci aw xeetam ba yonente boobu dem ba jóge fa beneen yonente ñëw yoola yooye mu daganaloon mu daat koy xaraamal wala am yu mu araamaloon beneen yonente ñëw yooyee mu daganal ko yooyu asharaa la muy ay détail la ci wàllu jëf ci wàllu ci wàllu jëflante yi nit yi ñuy jëflante ci mbirum sëy ci mbirum njaay ak ci yenn jaamu yàlla yi yenn détail yooyu moom asharaa la yooyu wuute man na cee am ci biir yonente yi waaye li nga xam ne nag mooy base bi mooy cosaan yi woote bi jëmmi wéetal yàlla jëmmi xam kan mooy yàlla jëmmi gëm yonente yi gëm téere yi gëm malaaka yi gëm bisu penc gëm dogal yooyu moom ñëpp ko bokkale ak yenn jaamu yàlla yu bari nañ koy def seeni cosaan nañ koy defee nag mën naa wute mel ni julli koor yooyu yëpp am na ci diini yi nga xam ne moo jiitu woon kon yooyu loolu mooy lislaam ci boppam mooy mbir moom nga xam ne ñëpp ko bokkule loolu mooy lislaam yonente bu yonente bu ñëw lislaam boobu lay woote waaye suñ borom yonente bi saasam daf ñoo xamal ne yonente yi buñ daan wootee ñoom suñ borom da leen daan yónni ci wu nit ñoom kese maanaam seen diine ak seen sharia dafa am fu mu yemoon benn app ñoom buñ fi jógee yàlla indi beneen yonent ñooñu seen sharia yaa jeex na léegi léegi beneen sharia tàmbale na muy sharia yonent ba ca topp noonu la nekkee Moussa ñëw Isa ñëw ba yàlla nag indi yonente bi sallallahu alayhi sallam muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dogal ne sharia mooy sharia bi fii nar a nekk nag continuer ba yowmal qiyaama diineem tudd lislaam it nga xam ne bu ñu waxee lislaam ci baatu ci baat bi nga xam ne moo gën a yaatu dañ cee jublu diine ji yàlla reconnaître rek muy diine lislaam diine yonente yépp waaye lislaam mën nañ ko wax ci baat bu gën a xat jublu ci nag diine jii nga xam ne nag moo làmboo cosaan yi ak sharia bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi nag buñ waxee lislaam ci jamono ji nag moom boobu rek lañ ci jublu ndax moom rek moom moo fi nekk muy ginnaaw bi yàlla yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lislaam bi valable nag mooy bii nga xam ne moom la yonent bi mujjee indi moom la yonent bi mujjee ñëw indi mu yonent bi yonente muhammad sallallahu alayhi wa sallam lislaam boobu mooy continuer nag ba yowmal qiyaama lépp lu yonte bi sallallahu alayhi wasallam wax képp koo xam ne fekkee na woote yonte bi sallallahu alayhi wasallam war na ci yow nga gëm ko topp ko ndax sa yonente yi nga daan topp it buñ ko fekkee woon dañ koy topp ndax lan ndax yow suñ borom moom nga jébbal sa bopp suñ borom boo ko jébbalee boo ko jébbalee sa bopp da ngay wëlbatiku ci fim la wëlbatikuloo nekkoon nga ci jamonoy Moussa wala ci jamonoy Isa di topp Moussa wala jamono isa ngay top yonente yàlla isa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw suñ borom lam la digal ci waxto moy nga top ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su boba lam la njëkkoon digal ci ca d'ailleurs sax loolu lu ci bari bari soppeku na lu ci bari bari changer nañ ko ndax suñ borom mi ngi xamal ni ñoom seen téré ji fi ak chrétien yi dañ ci soppi lu bari bari bari jaxase ci waaye buñ ko wul won sax ya nga xamne ay détails la ci cey atte yu ci bari folli nañ ko nag maam yooye folli nañ ko ci diine yonente bi sallallahu moo folli yooyu yëpp léegi nag moom rek mooy diine bi nga xam ne moom lañ war a topp kon benn jullit warta gëm ne juif yi wala chrétien yi la ñu nekk di ca woote dëgg la mën na nekk ci dëgg ba ba noppi bàyyi fii di gëm bañ a gëm yonente bi sallallahu alayhi wa bañ a nekk ay jullit ba noppi nekk ci dëgg loolu jullit war a jàppale loolu lu war a mën a nekk loolu képp ku ko gëm da ngay ca xam ko da ngay génn ci diina ji da ngay daal di nekk ak kéefar ndax gëm yonente bi salaa sallam ci ponk la ponk la ci ponk ngëm yi fa aminu billahi wa rasulihi an nabiyi l ummiyi alladi yuminu billah loolu leen wax ñoom chrétien ak juif gëm yàlla gëm yonenteem bii wattabiuhu wattabiuhu mooy na ngeen ko topp laallakum taxtaduun ngir ngeen gindiku kon boo leen ko toppal doo leen gindiku moo tax suñu borom subhaanahu wa wax ci alxuraan ne eh, ba juif yi a chrétien yi kenn ku nekk di woote ne boo nekkee juif da ngay eh, boobu ngay jub chrétien yi ne boo nekkee boo nekkee chrétien yi nekk ci njub wa qaalu kunu hudan aw nasara tahtadu suñu borom ne leen déedéet nekk chrétien wala nekk juif loolu taxut nga nekk ci njub lu nekk lan mooy ak njub muy qul bal millata ibrahima xanifa diine ji fi ibrahim nekkoon muy islaam wa ma kaana min al mushrikin ne leen boo leen bëggee nekk ci jub lan ngeen di wax qulu wax leen amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbat wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya annabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun muslimun boo leen bëggee nekk ci jub daal wax leen ne gëm naa yàlla gëm alquran li ñu wàccee ci yonent bi sallallahu gëm li ñu wàccee ci ibrahim ci ismail ci ishaq ci yaqub ci asbaati yi li ñu wàccee ci muusa ci isa ak liñ jox yonente yépp yi jiitu woon gëm naa ko du ma teqale benn yonent di gëm kii di bàyyi kii ñépp lay boole gëm waaye nag wa nahnu lahu muslimun ñun daal suñ boroom lañ njëbbal suñ bopp fu ñu jëmee ñu jëm fa fi suñ borom nag jëmloo nit ñi nag ginnaaw bi mu yebalee yonent bi salaa salaam moo ñu topp ko moom rek fi mu toll nii mooy yoon wu valable ngir mën a am ngër ngërëmal suñ borom subhaanahu wa taala ngir mën a am bëggeelu suñ borom subhaanahu wa taala mooy yoon wi nga xam ne mooy yoonu yonent bi salaa salaam qul in kuntum tuhibbuna allaha ñëpp lay waxal mu dee bëgg ngeen yàlla di wax ne suñ borom ngeen i sàkku a ngërëmam yéen ñëpp yéen nit ñi fattabi'uni topp leen ma man Muhammad صلى الله عليه وسلم بولين كون فيدا يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم كون اي اي تكسلا يو خامني بلو ون اي جوليت يو خامني ньо ديفيني نيت كي مانا نيك لنين اك لنين با نوبي نيك تي لو باخ دانكا تيرو ون صاح دي تي نيو ناخ جوليت بو نيك لي لي تي بونكي نغم لا بوك وار خام لولو جوليت بو نيك لي داكو ورا گم لول نك اي عمل گام يو باري باري باري دا تي ام تي جامونو جي اه، رواتينا Euh, bi ñu noon ëppee doole seeni discours gën a féete kaw ñu ñu ñu dem ba yaras ba yaafus ba defe ne euh, euh, yépp benn la daal lépp benn la christianisme l'islam nak judaïsme lépp benn la déedéet islam mooy diine bi nga xam ne moom la yàlla masa jox yonante yi seen yonante yo seen yonante yi nga xam ne ñoom dañuy woote woone ci ñoom la ñuy askanoo muy Moussa Isa islam lañ indi islam lañ indi islaam nag mooy fu la yàlla jëmloo nga jëm fa yàlla nag fi mu jëmloo nit ñi bi mu yebalee yonent bi mooy ñu topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ defee loolu ñoom kon gëm nañ seen yonent gëm suñu yonent waaye fi mu toll nii ñoom des gin des ci li nekk fi mu toll nii dañoo weddi seeni yonent weddi nañ yonent yàlla isa muy chrétien yi dund ci jamono ji di wax ne ay chrétien lañ weddi nañ yonent yàlla isa gëmatuñ ko dëggantaan li yonent yàlla isa weddi doon woote weddi nañ ko ndax mooy lislaam ñuy wax ne ay jif lañ tamit weddi nañ yonent yàlla muusa doon woote ndax loolu mooy lislaam والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين